Euh, ñu bàyyi la euh, nga introduire itam mais instant yi bal ba tàkk na papa yow bu la neexee rajaxe ñëwal. Ah. li may wax mooy tëj saison. Hmm. dafa normal. lu normal. Eh. tëj saison ci boppam dafa doon lu normal. dafa jaadu. waaw te lu ñu war a def la lu tax. <laughs> may mama ree mayel plateau bi ñu ree ba pare ñu soog kon ne yow ah. <laughs> nga ñu àq papa. Paal. amal nañu àq. dafa am ñu ko jàppale yow tamit. yàlla tëj saison tëj saison. dafa doon lu war doon lu jaadu. te ñiy tëj saison. Mm. ñu bëgg yàlla leen. xam nga ragal yàlla ak bëgg yàlla du benn mais bëgg yàlla moo gën a foo ragal yàlla. Mm-hmm. ragal yàlla mooy ku gis jalaaliyatu ci yàlla am lu muy moytu di ragal safara di bëgg aljanna ki bëgg yàlla mooy koo xam ne du xaar dagan ak xaraam. moom lu muy def yàlla ko koy jaral muy dem boîte de nuit di naan sàngara di tëddee jigéen weer bu yàlla gënal ci kaw weer yi wàccee ci téere bi gën denc ci benn guddi bu nëbbu junnee guddi jot mu ne ah dootuma dem vogue bàyyi naa suma gel lu tax li yàlla màggal mooy ñëw dama koy teeru mais kooku bëgg yàlla la hmm. te loolu dafa jaadu hmm. donc mu tëj saison bi ci mbooleem ñaawteef di jéem mbaax hmm. daf daan baali ba fajar tëdd di nelaw ba tusubaar jot. Mhm. léegi changé na programme. Mhm. dafay la mhm. changé na programme day jug fajar. waaw même bu jugee lekk rek xëdd sunna la. dafa jug rek lekk tëddaat def na bàkkaar mais am na téya booy xëdd. donc koo xam ne heure boobu du ko fekk ci yooyu weeru koor changé ko te attention Sofia ku oor weeru koor bu ñu nangu fii ba déwén loo def du bàkkaar. ba tax mën ngaa def safaan ba tax mën ngaa defub safaan. loo xamee nangu yow déggul ba tax mën ngaa def safaan noo xamee nangu yow dégg ko soo déggee wax bi doo laaj laaj boobu. waxuma na xara xara. si néewuma ku woor xam ne nangu na waxuma loolu. waaw dama konoon ci laaj noo koy xamee. waaw waxuma loolu dama ne. ku woor koor guñ yow xam ngi ak ñàkk xam ngi du sa affaire nangu xam nangu gi moo nga war a defaraat sa toogaay. ba tey li ngay wax du benn toujours ma wax la ne la toujours ma wax la Cheikh ne la waxoo ak ay waxoo waxoo. ak ay ay ay borom xel ngay waxal. toujours ma wax la loolu non non yow da nga jël laajte teg ko fu mu la ku woor xam ne nangu na waaw non très su ma la waxoon loolu nga ne ma noo ko xamee. nangu googu yàlla dëxëñ. jullit bi warul xam yàlla nangul na ko bañal na ko. non de déggoo li ma jullit bi xam nga lu ko war. sellal yéeneem def ko mais nangu gi. waaw xam ak nangu gi. waaw loolu du sa affaire. kumpa lay doon xam ak jëf gi moo la war. kumpa lay doon. sëñ bi li ma la wax bul indi leneen. da ngay ñëw ci li ma la wax. si si li ngay wax c'est grave c'est bu ne non yow yaa laajte lu garab. te xamoo li nga laajte. bàyyi mu continuer. xamuloo li nga laajte. si si si bu baax. non non dama ne Sofia. képp ku jaamu yàlla weeru koor mu nangu ko fii ba déwén loo def du bàkkaar. lii laa wax mais néewu ma ne. mais ma daaneel dinaa ñëw ci yow néewu ma ne. xaaral xaaral maa ngi ñëw ci yow. xaaral ma leeral lii. neewuma ku woor ta xam ne nangu na su ma waxul loolu nga ne ma noo ko xamee. d'accord jullit li ko war li muy jëf na xam atte yàlla ci loolu jëf ko jëf ju sell pare na ci. nangu du affaire am xam nangu gi waru ko. xam jëf gi moo ko war. yow la wax nga. dama ne ba tax su la neexee. Mhm. nga def safaan ci diggante boobu donte konte leer na la ne ren ba déwén. loo fi def yàlla jéggal na la ko loolu ndax xam nga ne nit dina def dama lay laaj dama ne ba tax na suñu borom digal na la su la neexee nga def ab safaan wala ma man la lay tontu ndax li nga ma laaj père may ma ngoone danga ma laaj li la neex danga may ma tontu la mais doo ma forcé tontu danga may may ma tontu la ak xam-xam mais paa yaa may imposé tontoo ma nii léegi ba tey su la neexee d'accord waaw mun nga ma bàyyi ma tontu à ma façon waaw ginnaaw xam nga ne yàlla su la ndax mun nga ma bàyyi ma tontu ni ma neexee merci dama ne nit ki su ooree weeru koor wu ñu nangu lu mu def balaa benn weeru koor du bàkk bu ñu nangu bu yàlla nangu te gërëm mhm. ba beneen weeru koor lu mu def bàkkaar amu ca léegi nag ma ñëw ci yow non maa ngi ñëw ma ñëw ci yow maa ngi ñëw ci yow nit ki mën na def bàkkaar te du ko tey ndax nangu nga loolu waaw d'accord léegi lu tax yow nga bëgguma wiiree ci bu ko tayee. déet dama lay laaj rek dama ne. parce que li nga wax léegi mën naa la tontu mën naa la am xam ne mën na loo dégg wax ji tax ñu def ko léegi xaaral père. mën na bu ko tayee même nit ki moo ko tay mu neex ko mu dama ne ma ma ñëw. mais ma ñëw yaa ma laaj même nit ki tay ko mu neex ko mu def bàkkaar ah. du bàkkaar. yàllaa ko ko jégal ndax moom moom bàkkaar yàlla la neex. yoo xam nga ndax yàlla jégal na ko. moo ko wax moo ne ku oor weeru koor bu ñu nangu ba beneen weeru koor loo def ma jéggal ku julli ajuma bu ñu may ma ku julli ajuma bu ñu nangu ba beneen ajuma semaine bi loo def ma jéggal yàlla ko wax ah, loolu laaj moo ko wax ci làmmiñ waaye man tamit loolu laa laaj man mu am na ndey léegi tontu naa la ne mu nangu mu def safaan léegi tontu naa la ah, ne am yaakaar ci ne yàlla nangul na ko war naa tax mu nangoo def safaan loolu de laa laaj mais du tontu nanguwul non tontu naa la du tontu non da nga changé sa question da nga changé sa question yow da nga ma non non yow da nga ma dara waaw mais ma wax la loo wax danga ma ne bu ko tayee nag lii nga wax. lan yow danga ma ne bu ko tayee def bàkkaar bi loolu nga wax. dama la ne. yaa ma ne bu ko tayee def bàkkaar te du ko tey. non c'est possible. may la waaw. waaw léegi nag bu neexee la léegi su ko tayee def bu ko tayee yàlla mu ne baal naa ko. waaw. ah dégg ngeen ko de. Eh, eh, eh, ah. bu weeru njégal la ah, man day waar weeru bonus la buñ ci ñëwee ku ci nekk war ngaa changer sa comportement amaana luñ ci bëgg mooy boo ko ñemee ci 30 jours yooyu yàlla may na la chance su comportement bu baax boobu nga am nga continuer ko mhm. Sophia ah. promotion crédit bu bu amee pour ma bañ a tudd euh, ñiy jaay crédit mais promotion crédit bu amee ku leb bokkoo ci dëgg la wala déet jërëjëf promotion crédit saa yu amee ku leb bokkoo mhm. ñi ñuy may promotion mooy ñi nga xam ne jënd nañu waaye bu dee da ngaa yow duñ la may doo am doo am mm. euh, li Cheikh doon wax léegi diggante bi ngay wooree bay génn koor ku sa koor nanguwul boo génnee ci koor di ko xam mhm. yàlla dafa ni mm. boo wooree boo woor jeex mm. bu sa koor nanguwul boo ci génnee di nga ko xam ah parce que diiran weer wi ngay woor li yàlla wax ni yaa ayyuhan naasu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaxun ta ngi lay maa ngi farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci yonent yi leen jiitu woon ca aadama ba ca Isa ba ci yonent bi mhm. mais résultat bi ma bëgg ci yéen laallakum xarfu rajaala ñu jàng nax ñoo koy xam xëy na bu ngeen wooree te sellal ko te taqu na bu ngeen génnee ci koor gi di ngeen di ngeen ma gën a ragal man yàlla mais bu fekkee ni woor nga ko ba mu jeex nga delluwaat ci li nga nekkoon moo lay wan ni kon yow koor gi dëgguwul parce que bu dëggoo ni nga ko waroon defee xadi sellal ko jomb ngaa defati lu ñaaw mhm. da nga daan tux bëccëgu weeru koor nit dootuma tax muy guddi muy bëccëg ni nga ko mënee muñ weer mën nga cee continuer di di dem fu ma neex bëccëgu weeru koor mënuma ko guddi gi weeru koor mënuma ko ni ma ko mënee muñu weer mën naa ko continuer noonu. Mhm. boo ko jàppee weer ba weer wi jeex. yonent yàlla nee na laallakum tattaxun boo ci génnee lenn loo nekkee woon muy caaxaan diñ ci génn mais bi Cheikh wax sànq yonent bi dafa ni man saama ku woor ramadaana weeru koor imaanan am ci ngëm yàlla gu mat sëkk waxti saaban ak toroxlu ba mu jeex takk xufira mhm. lahu maa taqaddama min zanbihi bàkkaar bu mës a def baal nañ ko ko waaye day fekk nga sellal koor gi mhm. li su fi wax sànq dafa di dëgg mhm. parce que am na loo xamante ni danga koy defee fenn mu ngi mel ni tey ñu romboon ñu romboon per mbay Ngone ñu baal ma ci kàddu bi may jël waxal demal ñu romboon Père mbay Ngone muy tox moo gën a sedd ñu romb Oustaz Mouhamed Mbaye muy tox <laughs> waaw wala déet te pourtant mooma mag waaw moo ma gën a nekk kilifa ci ci ci ay at. mais ñu ngi xool ne oustaz kat waxtaankat la. waxtaankat la warta tux waaw ci moom la gën a yombe chaque jour nga romb paa bu tux te du la yem noonu la koor mel. Mm-hmm. koor li su fi mu ndaw wax sànq. Mm-hmm. gis nga koor boo ci defee benn bàkkaar dañ la koy doubleel bàkkaari bàkkaari bàkkaar parce que weeru yiw la mm-hmm. koor dañuy. jéng seytaane denc ko kon lu nit defati bakkenam la li cheikh doon way sànq ci burdu borom burdu mu ngi ko ci way wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa'i hmm. wa in taftimhu yan fatimi borom burdu nee bakken moo xale ñoo yam hmm. heure boo ko bëggee feral rek feral ko hmm. waaye boo ko bëggul feral nag day mel ni fas day màmm man lii bi raddi jimaaxin min rawayatiha kama yu raddu jimaaxul xayl bil lujumi waaye tëj saison ci ñaari anam moo ci am benn bi mooy ñi peer wax sànq te mooy xale yi nga xamante ni ñu ngi tëj saison am na de gis nga xadi colonel risque passé tul yónnee photo taw ay foto yoo xamante ni solo ci yére ndax mbëggeel bu leen boole yéen ñaar bu ngeen sëyul nag te sëy yàlla nga koy takkee ci aras mm. photo yooyu lan ak lan la mën a jur seen diggante ëllëg mm. Mm. góor goo xamante ni takku la nga ni yéen ñaar da ngeen a war a tëj saison saison bi ngeen di tëj yéen ñaar ku leen wax ni di ngeen ko ibbiwaat ak naka lay demee ak lan moo tax ngeen koy tëj ñàkk koor gu nangu mu ngi mu ngi mu ngi ci firndeel lan demee korité soirée nangam lendemain korité nangam mooy yow yàlla li nga ñu tegoon ci weer wi ñàkk pexe la waaye génn nañ ci safaatuñu yàlla ni man dama bëggoon résultat mbaax ci yéen comme bëggoo leen ko kay li ngeen woor da ngeen doon xiif rek kon amul woon sans ci ngeen yi woor bay egsi foofu mm. loolu mooy njëriñu beneen bi ci des mooy tëj saison bi Cheikh wax mm. te mooy yàlla kat la rabiatul adawiya waxoon yàlla oustaz yow lan nga wax ci li Cheikh wax par rapport ak tëj mm. saison tëj saison comme ah, li mu wax ne dafa normal dafa di ci ki baax ki nga xam ne nee na yàlla war naa lépp ginnaaw moom moom concept boob la waxee. donc kon yow da ngay cautionné lu mu wax. waaw dafa ni war naa lépp ginnaaw ñaari tëj saison laax ni moo am. tëj saison bi père wax ni xale yi moom lañu ñu nekkee. ma ni tëj koog ñàkk tëj ala kulli xalin ba yomal xiyaam day xaraam. Mm. baaxul mm. muy tëj ak muy ibbi. Mm-hmm. mais Cheikh beneen bi mu waxee ci wàllu fa dafa wax ni. Mm-hmm. tëj saison baax na ñu yooxoondoo mu ne ban tëj saison mooy xam Mouhamed bay mm-hmm. dafa doon naan sàngara. dafa doon dem soirée dafa doon nangam mu ñëw ba catu koor comme démb man yàlla maa ngi tëj saison bi. incha allahu taala bàyyi naa naan gi bàyyi naa tux gi bàyyi naa taxawàllu gi bàyyi naa jaxasoo jigéen ñi maa ngi dugg ci weer woo xam ne daaw ci heure bi am na ku mu fi fekkoon fekk ko fi daaw am na ku nekkoon ci ay activité mu ngi ci prison bi tëdd keneen ki mu ngi ko fekk hôpital ginnaaw mayaat na ma fekkee gi tal gi ma koy tëj tëj naa ko ci tëj boo xam ne ñaan naa yàlla balaa weer wi jeex yàlla bu ma ko ibbeeti te mooy naa ko tëj dootuma naan sàngara dama koy tëj dootuma tux mm-hmm. pour man seex concept boobu la waxee ma ne kon baax na Cheikh dañ koo dégluwul nañ ko de waroon dégluwee. moo tax ma ne nañ ko bàyyi mu daaneel. nam mu waxee. nañu ko bàyyi mu daaneel parce que tëj bi mu wax ni baax na. dañu yoo parce que ñun ñëpp concept bi ñu daan am ci tëj saison mooy dem géej. dem dem dem ni xale yi def dem dem baali dem def nangam def nangam def nangam gis nga Sofia hmm. euh, sànq euh, sa kii nu mu tudd. déedéet. Prospère Prospère day wax benn wax ba solo. Hmm. ci ci waraatekat yi mais yàlla mi bind jaamam ñi. teg ñaari yoon imma hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafuran teg naa ñaari yoon man yàlla dama leen koy proposé waaye imposé wu leen ko bii mooy yoonu aljana bii mooy yoon safara damay toog nag di leen seetaan yàqamtiwuma kenn mhm. man mi la fekkoon ci sa biiru ndey ngay lekk lu safkaani ma changé ko ba nga mën koo lekk lu tàng ma fexew ba seddal ko noonu ma la toppee noonu laa lay toppee ngay dox ba man ak yow ci biir bàmmeel ginnaaw nag musuma laa yónnee facture wax musuma laa yónnee facture dox musuma laa yónnee facture dégg musuma laa yónnee facture xool boo dekkee yow mal xiyam sa tànku ndeyjoor bi balaa nga koy teg di ma wax ci sa dund gi ci loo ko paase dinaa lax sa alal ji foo ko jëlee dinaa lax fan nga ko def loolu jaam bu koy xalaat kay jarul tëj ak tëj ji moom da ngay tëj ba faw rek ayca Cheikh ñu bàyyi ko bu daaneel laataa ñu delloo euh, kàddu gi ci papa ah, tëj ba donc man foofu laa doon waxee da ngay gis na tey am na ñu am concept gisee seen far gisee bu mujj balaa weeru koor ah. non mais dafa am koo xam ne Sofia su weeru koor di ñëw dafay jëndi ay abaya dina ci dépenser plus de deux cent mille waaw plus de trois cent mille dina jëndi ay kaala ngir muur boppam mais kooku boo ko war bonal tëj saison. ndax da nga ko war a bàyyi nam doon soloog nam doon defee mu def ko durant ramadan bi non mais kooku ndax amul mérite ci considération bi mu jox yàlla jox ko weeru koor si am na ko. Ah, kay ndéem du ca dellu dafa dafa am benn benn. ndéem du ca gis nga dafa am ñett yoo xam ne dafay ràmm yowmal xiyaam. ndéem du ca dellu. alquran ci la bokk. weeru koor ci la bokk. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ci la bokk. dafa am benn nit dafa dëkkoon ak jullit ñi gëmut yàlla. du juif du chrétien. mais su weeru koor jotaan mu daan jënd lekk da daan yóbbu ñaari mbuus ak malaan su paree nëbbu ko. kenn musu koo gis mu lekk weeru koor du tëdd ak jabaram bëccëgi weeru koor ngir ormal weeru koor biñ eggee yowmal xiyam ñu war ko yóbbu safara weeru koor moo daw laxasu ko ne yàlla kii musta xotti suma sutura musta ñàkk orme man suma jëmm ji kii man maa ko ràmm lii ma wax boroom xam-xam yu bari nettali neen ko ci siya ci ahlu sunna ñu d'accord ne weeru koor day ràmm yowmal xiyam même koo xam ne du or ngir dafa ñàkk jom du or parce que dafa ragal xiif du or parce que dafa wéradi mais suy lekk dafay tëj bunt ñun la preuve musu ñoo xam suñu yaay ban bis leen doon or wala duñ doon woor man bi ma magee laa xam ne jigéen day ñàkk a woor mais sa yaay du lekk sa kanam jamais du ko def donc ormo boobu ku ko am ci weeru koor sa te yow doo daan woor ak yëpp sa boo demee yomal xam weeru koor dalay dalay ramu nga or ndax ormal nga ko am na koo xam ne day ndamoo ooruma dañ koy tàllal micro ci télé mu ne man duma ma woor parce que lii laa gëm fii laa bokk mais kooku kii nëbbu lekkam weeru koor moo ko gën dix mille fois donc effort bu ndaw bi jullit bi di def ak ku dul jullit faaw ñu sa effort boobu ngir yokk valeur gis nga buñ noppee gërëm jàmbaar yi rek yambar yi di la di yaataa yumbe bis buñ noppee gërëm jàmbaar yi yambar yi ñooy yaataa yumbe donc kon tëj saison ci ni ma waxee benn borom xam-xam nu caa teggi virgule dafa dagaan magi baax ndax yàlla bëgg ñu baax xam nga tey su fekkoon ne den war a baax balaa weeru koor yàlla du indi weeru koor ñàkkul ci diine l'islam te du deuxième position da ngay gëm yàlla di julli di génnee asaka door a woor donc kon bu fekkee gëm yàlla bi nga wax du dëgg ci yow ba soo taxawee ne allahu bar munoo gis màggaay yàlla ba da ngay jëw di ndàngam ñu ne la ah léegi nag boo amee alal génnee ci asaka boo amul ñu di la jox lii yëpp du solution ñu ne la wooral bu lii yëpp doonul solution ñu simmi la solal la yëre weex di la dawloo safaak maro di la sànni lool lii aj màkka ngir nga mën a baax donc tey yii yëpp su fekkee ne amoon na soxlawuñ koor parce que yowmal xiyaam gi ñu jëm bu la yàlla gërëmee doo soxla koor léegi nag yaa ngi war a jublu si si koor yàlla bi mu bindee weeru koor tiyaaboom malayka bu mu ko jox nga yóbbu ko doo ko àttan mu ne kon bàyyee leen ma kii woor ak ki ma fayee leen suma bopp noonu la koor diisee te ramadan turu yàlla la ci làkku ibru ramadan turu yàlla la lépp yàlla la yow nga bàyyi lépp ngir yàlla ñu ne la yow bëggoo yàlla wala yow c'est pas normal neen leen di tëj saison bi bu jeexee nag ubbi gënut waaye ko ubbi sa affaire la. papa laataa delloo kàddu gi xadi <laughs> euh, colonel euh, ñu bàyyi la yow it nga ñëwaat ci tuuti rek.